man daal li ma la mën wax man jullit laa lii daal laa xam ci jullit boo xam ne koor wàcc na ko mooy mu feebar mbaa mu tukki xaw ci leen ni man euh, yooyu laa xam ci jullit muy benn ñaareel ba dama ne ñi bañ a campagne weeru koor ñu ngi football weeru koor am déet yéen journaliste yi da di nekk di reportage weeru koor di tang dag ngi naaj bi lu tax gaa yi ba a campagne ci naaj bi ci koor gi noo yooyu foog ngeen seetaat ci dëgg-dëgg ndax loolu wéeruwaay la pour changé élection carême carême bu catholique yi lan la joteeg élection wóoru julli lan la jote élection jotewuñu dara ma ne xam nga lu xew na gaa yi mu voté yi moo gën camp nañu campagne voté ñu nekk ci jàmm ki ñu fal yor Sénégal jàmm ak salaam loolu moo gën